day tax jot jox ko avance mu doon danga doon suñu bépp tey tam say fer yéen jooy di ñoomay faj danga ñaari bu ko ma yokku taaj wari ma sa kenn ma jàpp saaj tam si ñaari daanu génn jaaj maa ngi woon maaw gisuma la sama taw yow woo teel ba nga soob suñu teer leen dañ bël suñu dina dalee bël ku fi ak suñu coow xaru tabaski rek sër fàttali sa marañe garabu cat teg xelu mbaam ma fàq yat Hey, some of it is going to be you know. Hello, you know, you know. Oh, it's going to be you, some of it. Chit, uh. chit, Hey, DJ Chilam, you know I'm better than this. You know I'm better than this. You know I'm better Aja. What? Nigga, bro. But I'm Jack. What? Uh. Yeah. Oh. I'm like a man. Nakasabit matam lang na dala sa Bosch Anytime, let's go, waholo ang Saray The na ganyan, flow rock Hindi lunahin, sa kuling ka na ba? Eh, daraw to see Kaya ganyan sa Take na katuwa Eh, pala pala Take dick, di ko take kong busy Eh, wakaluga du li ngay teg moom a neex ah ok mën a duma am jàpp ak place kon duma yow e dégg di dara li ngay rab dégg naa ko bi moom may eggee ci fii may kali kali may énergie fii impro ah impro impro impro on enchaîne on enchaîne vite fait ci laas ñu dem même bit bi même bit bi impro ah même bit bi waaw nañ ko impro waay impro ah nañ ko foo waay respectez respectez sa anniversaire respectez sa anniversaire Djokovic, you know. Yes. Jay Fuck Jay Silver. Trong tôi quanh đông mặt ra Ale cũng dài Như gương nhiều như nhiều xe tăng thì mình cứ tục chi Muốn cho hiện album một đêm Rất nhiều album một đêm Anh thấy cũng mặc album một đêm Anh thấy cũng mặc album một đêm Nên đâu mình đem đi ra như phép Yogurt, a yogurt, yogurt, mà đây có các bạn, a yogurt, a yogurt, a yogurt, and you will, and you will, and you will, and you will, and you will, and you will. Ah, Taylor playing. Yeah, yeah. Yeah. Low, low, low, low, low, low, low, low. Guy. Guy. Guy, ñu ànd ak kii sa loxo ci kaw ba doomu day ñëwal saa yi saa na keneen ñëw kuy wàccee king bi la xaar kuy wàccee king bi. waa gars yi yëpp. jéeg. injecté la activité ci service am. eh dugal sa xuur loolu lay jafe njuri gisal leen leen sant njuli iri leen ay xaajagul man la maan ay ngay tëbb bu suuf sa peeru kuuri déggu ma déggu ma déggu ma déggu ma maa man nii nga waaw Wow, hey, I don't waaw a dafay impro walan ko sol lanko verre niggas maa ngi nii su ma neexee génnal sama verre ay wala mag dafay damay jàpp si MC di rey teg si fukk si niggas dafa nekk niggas mooy nag I'm gonna take my di jug the wax lu turbe niggas da nga tofe niggas the da ngay turbe raba yëpp niggas maa dem pep bégal bégal tuuti daaw jutal la comme figi figi rey daaw dañu gem dañuy kalaa dellaa teg góor jëla tuuti ay xajoo may tax anyway maa ngi tëgg comme tabax dina iri ci kër ci taka indi ñu bolu kusu bu non ka mu su ne mo sore ay ma ci fer le sata tax ci fer ko da nga ci ay tele xelal ay xol ma jam ñu ci fe da bon ay tol da ka tax soo fekk affaire bi jàmm laa woote fii si garut bi rab ko si tëmb la may imbécile soxla ma gën suñu bés lépp lay gis yor gis ci poche moo tax ma gis am musique ak good bye dur la ma porte à porte xooli gis bu tamit am fii grave la ma tëgg ah, ak ak bokk ci di wëpp ak bokk ci classe côté dollar euro yaa ngi si c'est pas bosta bosta finger boo jugal ni karaw waat sama bopp la xaar

la tàgge gars yi waaw léegi déglu leen ko ngir yàlla. gars yi. alors HLM yoon bi yaakaar naa ma yóbbu lu mu tas tas may dem bëri ñu ma bëgg a fagatal léeg-léeg damay tëgg waaye ma nga may taas ñu tàng damay jam jam nan dik di jërëjëf di ci tam tam may dik toog maa ko ñaam dama ci wala ODB amul benn digal bu may si boo sa HLM boy digal HLM boy

This is yun, di ka balik ang may diyan Ang